asalaamaaleykum mbokku téléspectateur ak internetu Bichri TV jotaayu politique la wax ak Mamadou Cissé niki altine 7 janvier 2019 mu ci dalal bu 17h jàpp 18 h kooku ñuy wax Cheikh Bamba Dièye député à l' national nationale waaye it leader bu parti FSD/BJ. niki altine joojee nag dinañ ci waxtaane moom Mamadou Cissé ak Cheikh Bamba Dièye député à l'Assemblée nationale tolluwaayu li nga xamante ni mooy politique jamono ji fii ci Sénégal bu ko kenn uute fii lay xewee si bi